Alquran sëñ Abdourahmane xam naa kon yin fi wax yëpp bëri na te am na point yu bëri yoo xamante ni bëgg nañ cee ñëw te xaj na waxtu duñu ko may xam naa ci gàttal rek li xaar yi moom bëri na lool xam naa ñu wax am solo gu waxtaane am solo moo war loolu waaye xam naa kon seen xaar yi daam daroon sàkku ci ñu jox ko rek mu waxaat xaj na nu ni def ba taxallus ci li nga xam ne moo di ak ndax su jigéen yi fi wax yëpp ndax itam nit ñi dañoo soxla woo comme que nit ñi dañoo bëgg gudd fan ñi bëgg a wér ñi bëgg a fiiw ñi nàngam buñ leen teralee yooyu ba pare nag war naa am lu leen fi tegal loolu boo gisee ma di ko sàkk mooy toog ci ab barab wax ak njibar ak ni mu dansé ba àggal nit ñi jóge fa duus ya du sax ñii ndax ñi ay jàngkat lañ te ab jàngkat moom waxtu wu ne mi ngi dajeeg téere yi nga xam ne luy dox diggante nit ki ak njabarang fa waaye xëy na kaset yi mën naa tisaaroo bal télévision bi sax mën na cee jot nit nekk këram seetaan ñu rëyalu njabar lool ba sax bëgg mu génn ci moom waaye joxuñu ko ay solution te alxuraan aw doxinam du noonu bu yàlla ne wa laysal birru bi an ta'tul buyuta lays min zuhuriha day wax walaakinal birru man ittaqa su ne du nii danaan nii la su ne du nii danaan nii la kon bokk na ci ci biir li nga xam ne nit ki mën na cee jaare ba mucc ci ak njibar mooy muy jàng alquran loolu suñ boroom moo ko wax wa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina laa yu'minuuna bil axira xijaaban mastura su fekkee ne yaa ngi jàng alquran nun yàlla nu def sa diggante yow mi koy jàng ak diggante ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira te njabarkat yee ci jiitu laa ñi nga xam ne laa yuminuuna bil aaxira njabarkat yee ci jiitu ndax bu ñu bu leen wóoroon ne attam njibar ci lislaam mooy rey ni ko suñ bi waxee léegi beneen ba ca des itam maanaam mooy xamlu gi ci boppam rek damay jàpp ne wuute gi ci am ci naan ndax ak kéefar wala du kéefar al imaamu tabari ibnu jarir at tabari dafa cee wax wax ju am solo ci tafsiram bi mu wax ne loolu mi ngi delluwaat ci wamaa ji ndax dañ koy jàppe mawsuul wala dañ koy jàppe maanaafiya wama unzila ala al malakayni dafa am ñu wax ne yàlla nee na maanaa suleymaan wama kafara suleymaan walakin shayatin shayatin yooye nag boo ko laajee ñooy ñan muy haaruuta ak maaruuta shayatin yooyu nga xam ne haaruuta ak maaruuta badal la maanaam haaruuta badal la ci shayatin boobu maaruuta ñu ataf ko ci nga laaj ko su boobaa lan moo tax kon maanaam mubdal mi gën a bari ndax ay shayatin la wax ñu def ko jamu lii ñu def ko ñaar rek mu ne ndaxte aqallul jam'i isnaani la kon buñ jàppee prix moom nga xam dañoo xam ne walaakin shayatin kafaru shayatin yooyu mooy mooy mooy mooy mooy haaruta ak maaruta nga xam ne ña nga ca bi baabil di jàngale loolu ta na ngeen xam ne nag wama unzila wàcce wuñ ak njabar alal malakay ni wama unzila alal malakay ni ak njabar wàcce wuñ ko ci ci ci ña nga xam ne ñooy malaayka ya ndaxte malaayka yi laa yaasuuna allaha malaaka du mooy yàlla te ak njabar ak mooy yàlla la te loolu ñëpp dëppoo nañ ci ne malaaka du mooy sunu borom subhanahu wa taala ci benn yoon ñi nga xam ne ñoo wax ne malaaka du mooy yàlla benn yoon ñoo wax ne kon wamaa ji doonut mawzuul comme ni nga xamee ne maa tatlu shayatin wattabao maa la nga xam ne tatlu shayatin dañ ko topp wamaa ak la nga xam ne unzila alal malakay ni dañ ko topp wamaa ak la nga xam ne unzila alal malakay ni suba ñoom foofu lañ koy ataf dañ naan ña nga topp maa tatlu shayat toppaale itam wamaa unzila alal malakay ni te mooy haaruta ak maaruta moom su boobaa nag damay jàpp ne am na sax ay dëgg la ay borom xam-xam yu ko wax yoo xam ne nee na ñooña bañ ñëwee dañ doon wax nit ki ne ko na dañ koy leeral ba nekk ci njëlbeen gi ne ko innama nahnu fitna innama nahnu fitna kon nag fala takfur fala takfur fala takfur ñu ko leer na nañ mooy boo duggee ci fii te kufru dem moo tax foofu boo xoolee ci ibnu jarir at-tabari nett leen fi benn xadis boo xam ne nee na xadis bi xadis bi suñu yaay Aïcha ko wax mu ne dafa am koo xam ne yonent salaam dafay jógee mu ñëw bi mu ñëwee di jigéen daat ne man day damaa def loo xam ne dama fee bëggoon a fekk sallallahu alayhi wasallam te fekkuma ko fi ndax def naa lu rëy ñu ne ko lu mu doon mu ne dafa am benn bis ma réer le sama boroom kër gisuma ko ay ati at ñu jekki-jekki seen soxna ñëwal ma ci ak timis ne ma soo fekkee ne da ngaa bëgg sa borom kër boobu ñëw am na loo xam ne mën naa laa mën naa la ko defal ma ne ko lu mu doon mu daan ma indil ab kal bu ab xaj bu ñuul ne ma boo ci waree léegi nu dem nee na man tam ma soob war ca bi ma ci waree diggante su gàtt mu wàcce ñu ci barab bu ñu wax baabil nee na ma gis ñaari nit ñoo xam ne mu àllaqaani dañ leen a wékk seen tànk yaa ngi féete suuf seen bopp bi féete kaw nee na bi ñëwee ñu ne leen lu ñu laaj ñu lu leen tax a jóg nee na ñu ne dañoo ñëw pour xamlu ji ak xamlu loolu yi nga xam ne moo di ak njibar nee na ñu ne ma demal fee ca tannuur ba lee nga saw ca te loo ca gis nga ñëw wax na ko nee na ma ma dem ca tannuur ba ba ma ca gaan dem bay waa ba bay waaj a gaanuwaay tannuur maanaam maanaam mooy daal fi nga xam ne fi la ñuy fuur la saaru fuur la maanaam fi nga xam fi jigéen ñi fi fi fi fi nu mu tuddee fa doom ba nekk rek ca gàttal fa doom ba nekk nee na bi ma ñëwee ba ba dem ba nartee kii sama sama yaram mayuma ko parce que yu mel ne boo ci boo ci so boo ci duggugut bu fekkee ne da ngaa des ak sa tabiyaan yi rek doo doo ñeme mi ngi mel ne am na ñoo xam dañu naan la ah loolu nag da ngay da ngay dagg sa baaraam bii da ci njël mi yëpp baaraam wala ñu ne ah loolu nag nga laxandi comme néew da ciy bokk yëpp. lée il am néew nga wax waaye njëlbeen gi bu ñu ah xoolal gis nga fii nag bu am nga la boo kii nga dem demal demal nga xalaataat li la tax a jóg muy alal ju bëree bëri nga toog ne ah waaye léegi loolu sax laa nu ñu koy wutee loolu ni mu yombee tànkat néew yi boo demee ñu jaay la ko fii ne cër boo soxla boo gis nga ko ci yorum néew nga garder ku baax boo moytu da nga ko suul te fekk ay baaraam du ca nekk wala nga suul ko fekk kawar nga dindi nañ ko. wala nga suul ko fekk ñu dindi bëñ yi am na ñoo xam ne si xaalif jaral la leen dindi bëñ yi néew laa la wax maa la xamal lool nee na bi ma ñëwee ma bëggee kii xaw sama yaram daw ma ma ñëw ma ñëw ñu ne ma ndax def nga ca lañ la waxoon ma ne waaw ñu ne ma loo gis ma ne gisuma dara ñu ne li nga wax du dëgg nee na ma ñëwaat ñaareelu yoon sama yaram nanguwut ma demaat ñu ne ma gis nga dara ñu ne ma def nga ma ne waaw ñu ne ma gis nga dara ma ne déet ñu ne ma kon defoo ko ñetteel yoon bi nag bi ma ñëwee neen seytaane man ma ma ma gaan waaye ca bi ma gaan waaye ne damaa gis benn faaris bu génn ab gawar di yéeg di yéeg ma di ko xool ba mu ne mes ci asamaan si nee na bi ma ñëwee ñu ne ma def nga loola ma ne ko waaw mu ne ma léegi loo gis ma ne damaa gis lu mel ne benn faaris boo xam ne mu xannaa la mu génn di dem ba gisatuma ko ñu ne ma loola sa imaan la loola sa liimaan la yow ñàkk nga sa liimaan nee na man ba ma fa jógee ki ma àndaloon bi ñëwee gisuma dara ma ne ko wax dëgg yàlla nag gaa yi defal nañ ma li ñu may defal waaye gisuma dara fekk booba mu ne ma defal nañ la lu rëy ne ma jëlal pepp ma jël pepp mu ne ma defal ci suuf ma def ci suuf pepp mi sax commencé def ay gub commencé daa di ñor fi saas nga xam ne daanaka rek maanaam lu mu bëgg fi saase rek day day day daal di nekk loo xam ne parce que léegi génn ci limaan bi léegi ay seytaane ñoo koy tàggatal mbir yi te yooyu sax doonut yoo xam ne dafa doon yu wér dëgg-dëgg waaye ci sa gis-gis noonu lay tëdde su ko defee kon jàng alquran moom kon bokk na ci li nga xam ne dana tax nit ki mucc ci man bi ka laada lu ci topp xaafahu seytaan alxuraan la doon waxal suñ cubaay suñ cubaay wax ak alxuraan moom lay waxal nee na ko gis nga yow mii yow alxuraan lay waxal man bi ka laada man laada bi ka kooku xaafahu seytaan seytaane ci boppam da koy ragal waxuma la ngay muslu seytaan waaye seytaan da lay daw yow moo tax ci misaal rek boo jëloon lu mel ne ab kursi yu tey nga xam ne man moom mooy sama gànnaay man kursi yu ci boppam. lenn loo xam ne mën naa jàmmaarloo ak moom ci àddina amut ci xeeti seytaane yooyu amut amut ci àddina lenn lu mën a jàmmaarloo ak kursi yu laa la wax amut ci àddina benn waaye daa nekk ci ab géew di wan nit ñi di leen jommal di jam boppam dégg nga ma ak ren di boppam benn waxambaane jaar fa rek sànni fa kursi yu mbàq ga bu buti di génn mu dem hôpital jinne ya fekk ko fa mu ne leen yéen a ñàkk ngor protection bi ngeen ma defaloon dem ba dem ba mu neex leen ngeen génn ci ñu ne ko cay boonu gisoon bi ñuy daw di génn dëkk bi ngir aayatul kursi bi fi waaj jàng ma ne leen kooku nag nu nuy def ñu ne ma boo wéree ñu def ay pexe pour jële ko fi waaye nee na at ma dellu si na mënuluñ ko tus at ma dellu si na te mënuluñ ko tus parce que tasallu maanaam diine bàyyiwu nit ñi noonu rek ñuy dem te yoruñu ngànnaay te ngànnaay loolu yàlla dafa maanaam dafa gën a rëy wi wiqaayatullahi aghnat an mudaafa maanaam yàlla bu la aaree du jar ngay ngay ànd ak i garde corps sax du ko jar ndax kaaraangeeg suñu borom dafa doy sëkk beneen ba ca des ci loo xam ne mën la ca dimbale mooy azkaar yi nga xam ne yonente bee ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam yow yaa ngi dugg ci wana wi bu yonente bi waxutoon ne wana ay jinne nga fa ku koy xam sallallahu alayhi wa sallam bu jàngale wutoon ci ay xadis wax ne allahuma inni audu bika min alxubusi wal xabaayis kuy dugg ci wan ak naka wax muslu ci jinne yu góor yi ak yu jigéen yi su na su nas boobu ñëwutoon kenn mënta xam ne aw wan ak place la boo xam ne ay jinne fay dëkk kenn mënu koo xam mënu koo trouver waaye ba ngay dugg boo ko waxee bu fekkee ne ña nga fa dañ fay jóge ñoom te ñoom xam ngeen ne saytaane yi maanaam jin gaa yi gaa saxara yooyu dañ leen di jëfandikoo pour lor doomu aadama benn médecin boo xam ne mi ngi fii ci jéemul benn bis damay waxtaan ma ba tudd ko xadis boobu mu ne ma ah man day mbooleem ñi nga xam dañ fay ñëw am problème la nga xam dañoo la faj nga xam ne bu ma leen laajee dañ ñama ba ñuy dugg ci wana wala lañ leen ko def man ñi nga xam dañ am problème tànk ñi bëree bëri xaw ma nag man cause ba xaw ma xaw ma sabab ba waaye ñoom nee nañ ma bu ñuy dugg ci wana la leen di parce que ki nga xam ne da lay topp te dafa séene wala bàyyi kooku mi ngi wut occasion rek saa bu amee occasion da la koy def mi ngi mi ngi mel ne saay-saay bi rek saa bu la jekkoo da lay def li mu lay def mu pour mu bañ laa mën a jekko nag mooy da ngay nekk ci li nga xam ne ku ca nekk du kii di su la jekk booy génn sa kër lu ci yonent sallallahu alayhi wasallam jàngale bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah xadis bu wér mu ne saytaane day wax moroomam ne ko kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa qiyaw ko fi kii moom loo koy mën a la ti kii moom kaaraa ki am na kaaraange de nee na mu daw ba keroog ngay ñëwaat ci kër gi kon azkar yooyu même yi nga xam ne ay muslaay la xeeti muslaay yooyu sallallahu alayhi wasallam daan def dégg nga ma yooyu yu am solo la ci buntu boobu ngir nit ñi mucc ci wàllu njibar ni ki noonu itam ah fan yii ci ginnaaw benn safooru taxi damaa am benn xale boo xam ne dañoo dugg da dañoo jëm fii Mbàkke xale bi yor aw kayit bind ci allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ma laaj xale bi ne ko waa yow xale bi yow kayit wi loo koy doyee mu ne ma damaa dugg ci taxi ñu ñëw ba ci wetu kër bàyyi laat police bu am na police buy taxaw foofu bu sonal taxi yi ne mu ne ma dee ma ko xoolal dee ma ko xoolal bu bu kii rek nga wax ma ma jàdd ne ma ne ko jërut ma la koy xoolal man ngaa dem xale bee ko wax de moo ko wax nee na ma jàng loolu safoor ba romb ko jàll ba mu ko jàllee ñu ñëw ba ci kër suñ Moodu foofu la ko doon wàcce mu ne ko waaw xale bi yow loo wax foofu ba ba ma romb police bi mu ne ko dama ne allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim mu ne ko bindal ma ko gaaw fekk xale bi doon yóbbu yóbbu añ ma ne ko léegi nag xam naa dangay bàyyi ba ngoon nga soog koo yóbbu léegi nan dugg nun ci taxi bi dem Mbàkke bi ñu duggee ci taxi bi jëm Mbàkke loolu moom ci gën a yitteel ñu yóbbu ba ci juuti bi am na benn waaye bu ñuy wax caam ab ab xam police la xam saara caam la tudd dane taxawal demal safoor bi daal am na ko wax dara de am na ko wax dara de ma ree moom itam mu ree daal ne xamul lu mën a xew waaye am na ko caam mii kum ne taxawal ba yàgg mu ne la demal am na ko am na ko wax dara ma geesu wax xale bi ne ko yow xanaa dangaa waxati la nga waxoon mu ne waaw ma ne ko kayit bi nag kon kii mooy sansam jox ko ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi ndokkeel bu baax ak di sant mbokk yi nga xam ne ñooñu indil xéewal gu réy gi ak njariñ lu màgg lii mu ñu taxawal lël bi ñu ñëw daal di koy ton jàll moo tax dana xaw a jafe ci man tomb bi ñuy waxtaane tomb bu am solo la ndax dafa nekk lu rëy xam nga loo xam ne mën naa ak gëm ko ak jàpp ko ak dund ko mën naa génne nit ki ci lu am solo li mu nekkoon muy njub gi muy lu baax lu am solo gi muy lislaam dugal ko ci faneen loolu tomb bu mat di waxtaane la jamono ji nekk tomb bu mat di leeral nit ñi la ngir lépp loo xam ne ca la bokk ñu teet ko wattandiku ko bàyyi ko ndax nekkul lu woyof dañ ne woon nag a sexru wa saxara wa athaaruha fi l mujtama sénégali bu ma juumul loolu moo doonoon seexatul mawdu indi nañ ci yu bari yoo xam ne xëy na indiwaat ci dana jafe waaye ci asaar yi loolu ay ay ay ay ay waxtaan la laaj maanaam munta nekk benn jataay athar yi nga xam ne ci pas-pas la jëm bés ci doon waxtaan lu yaatu la lu baree bari la nga xam ne pas-pas bu sell la maanaam boo doon boo doon seet Sénégal boo doon seet Sénégal plus de quatre-vingt pour cent wala quatre-vingt-dix pour cent yi boo leen taaraaree boo leen taaraaree seeni pas-pas fawwu njabar nekk ca dix pour cent yi nga xam ne xëy na moom ngay am wala vingt pour cent wala quinze pour cent loo mën a am ci pourcentage ñooña mën nañuy dëgër waaye fii ak mbir dalul seen kaw am na ñoo xam ne bu ñàkk dalee seen kaw ñu dal di dugg ci njabar am na ñoo xam ne bu ñu wéradee dugg ci njabar am na ñoo xam ne bu ñu tiitee dugg ci njabar ak lu mën di doon kon wàllu pas-pas buñ ci doon waxtaan ci ay jeexit yi nga xam ne def na ko fi kenn ko mënum toll sëriñ Xaadim doon wax léegi wa ida qaraata alquran jaal naa baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axira fii ne ñun ñëpp ay jàng alquran maanaam même ñii ñuy wax jullit ñi nga xam ne tey seen pas-pas yu waaye fee lañ yor ñëpp ay jàng alquran waaye kenn ku ci jàpp ne alquran mën na laa défendre mën na laa aar mën na laa nangam dëgg-dëgg ci pourcentage boo ko doon seet ay benn benn lay doon. ay benn benn la doon kon li mu yàq ci pas-pas kenn xamul nu mu toll bu ñu ñëwee ci wàllu athar aqliya yi xel li ñu ci yàq kenn xamul nu mu toll bari na fi nit ñu dof ñoo xam ne jeexiti njabar moo doon dof loo xamul nu mu toll bari na nit ñoo xam ne tiitaange jëlal naa jëlal naa seenu xel li koy jaxase mooy jàpp guñ jàpp ne barab bi ku fi mas a toog njabar la fi jële maanaam gëm guñ gëm ne barab bi ku fi toog ñu nekk sa ginnaaw ñëpp a yittewoo barab bi guddi ak bëccëg ñi ngi xëy ci yow tax maanaam du am tranquillité maanaam xel mi du dal loolu kenn xam ne doll yooyu taxuñ dañ dañuy wax lu nekk rek ñu joxe ci benn firnde jàll athar nafsiya yi loolu moom sëriñ bi joxe na ci yu am solo léegi léegi ca fan yi la ca ginnaaw am na benn waxkat bu buñ ne buñ ne moo ne buñ ne woon moo ne université Dakar dattel dana am avion bu fa da bu fa daanu keroog man Dakar la ma fekk jour boobu Dakar la ma fekk boo jaaree université da nga naan du lii na nga leen xamee woon ci seen rang-rang loo ba seen raj-raj loo ba da nga naan da nga naan fii du daara ju mag ji am na ñoo xam ne am na am naa fa ay xarit yoo xam ne ñoom dañ ne ñun sax gëmuñ ko waaye nag waaw ñun sax moom gëmuñ ko loolu la ñuy wax koo xam ne man daal gëm ma ko waaye daal xam nga bu ñëpp sayee ku sayut yaay def la lañuy wax maanaam nga xam ne du maanaam sa nafsiya jamono ju nekk xam nga wax na ko sànq nangami bakkan da maanaam bakkan yu bari danañ faatu kilifa yu bari danañu faatu ndox mi dana yàq lu bari nga xam ne ku nekk jàpp nga ne est-ce que du ci yow bakkan yay faatu ca nga bokk firfër ji ngay nekke nga xam ne loolu indi njabar indi na ci njeexit yoo xam ne jéggi na dayo bu ñëwee ci athar iqtisaadi yi yooyu moom kenn xamul nu mu toll yooyu bari na bari waa bari waay goo xam ne jéggi na dayo kenn xamul nu mu toll day gis koo xam ne day ñàkk day ñàkk dara ba noppi njabar gën koo ndóolloo man gis naa fii ci dëkk bi koo xam ne dañoo jigéen gu ñu sàcc sàcc takkaayam takkaayam mi ngi nekk six cent cinquante mille francs la woon takkaay bi téeméer gi ak fanweer ba mu calculer li mu ci defaat ci njabar yi mat na sept cent nangam mille maanaam ëpp na lañ ko sàccoon ca ku nekk la dañ naan ko boo demee ci diw dana feeñ diw laaj ko weexal mu ne ko boo demee ci diw dana feeñ ñu dem feeñ ñu boo demee ci diw ba mu àgg sept cent nangam mille ca six cent cinquante mille la réer la woon xam sur le plan économique li ci njabar di yàq loolu it bu doon waxtaan yu yu jar yuñ mën a am temps pour détailler ci yu yaatoo yaatu lay li ma jeexee rek comme bu ñaa nag mooy yenn yoo xam ne mën naa yéem nit ca du dara mën ngaa gis ab jabar mu defal lu yéem nit ca du dara mën ngaa dem ci jabar mu ne la da ngay indi ak ginaar boo ko indee bu ma rendee ginaar gi bu ma rendee ginaar gi ñu teg ginaar gi juróomi minute jëm kaw bu ginaar gi dekkee danaa la li may def ci yow dana sotti bu dekkiwut du sotti ca ginaar gi dana dekki ndax du dee bay dekki am na benn poudre bu ñuy def seen loxo càmmoñ li may wax gëstu yu leer laa ci am poudre bu ñuy def seen loxo càmmoñ bu ñu ko téyee ginaar gi bu ko ginaar gi noyyee day kiris dara dootu yëngu fekk fi ñuy waaje tëral ginaar gi lu mel ni mbuusu deret a ngi fi bu ñu ne puxuj paaka bi nga yàq deret ji sànni nga yaakaar ne ginaar gi mën a bàyyi ñu dem toog bu ci kanamee poudre ba jeex ginaar gi jóg nen yi saa boo ko defee ci vinaigre original laa wax vinaigre bu baax saa boo ko defee ci nen calcium bi day day day day day dee day taweeku mën nga ko xotti sotti ci ndox mi la nga bëgg def ca la nga ci bëgg boo ko defaatee ci ndox mi calcium bi del si waat mu nekkaat neen naturellement bu ñëwee boo ñëwee dana def la benn sest boo xam ne seneen bi nga indi dana ko am fu nga ko làq génn nañu boppam boo tëjee loolu am wasalaamaaleykum wa rahmatullah maskana laka sama wal aradi wal hawa biya musharikin liru mashiku bana aj ñi ngi ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu nag sang si doon def waxtaan wi waxtaan wi jaatu na lool kii na waaye nag sixar ak njabar lan la dëgg dëgg dëgg mel na ne xam naa ne sëñ Fakka bu doon daa defoon ab tamxiit boo xamante ne day leeral loola maa tabrilul mawdu kon doon na gën a baax ci ñiy déglu ndax man bëggoon naa ñu xool ba xam léegi sixar nangam ji la misaal tey yonte bi alayhi salaatu wasalaam ba muy laaj yooyee jat yooyee ba mu koy laaj ne garal leen ma ko xool daal ne daal dina baax na nu nit su njàngkat yi jéem a jël jat yooyee sëñ Xaarim Njaay jat bi mu doon doon jàng mu dem jéem a gëstu nag wërlu ba xam baat yi ndax sirk am na ci am déet bu ci amul mu daal di koy téye jëfandikoo ko ndax xam ne suñu borom moo ko xamal bindeef yi ngir ñu man koo nga naayoo maanaam ba bañ a taxaw ci ne rek xawma ko ni déet da ngay jóg nag da ngay bas loolu wason da ngay jóg gëstu ji ba xam baat yooyu ndax am na sirk am déet yaakaar naa loolu ab liggéey la boo xamante ne waras na na na ko cee def ndax sunu maam yi bàyyi nañ fi ay njariñ yu baree baree bari ci yoo xam ne bu ñu waxee ne rek njabar rek la maanaam nga xam ne baat bi dafa dafaat noonu rek ubbi ko kon ko kon yu bari dana dana dem ndax yaakaar naa sëñ Xaadim Njaay li mu wax loo xamante ne day bàcc waa ji fan yii rek ci ginnaaw digg naa koo xam ne ko koy toni ci kat tumbalit la yàq bët ba mooy daa fattu fattu rek médecins yi mënuñu mënuñu ci dara kon yaakaar naa kon jatam googu su su su ko leeree ne ko sirk amu ca ah kon kon de dana dana am njëriñ def na ah dana am njëriñ loolu bëgg naa ñu ñu bàyyi ko koo xel maanaam nun ñu jàngataat suñu bopp ba xam. lislaam lislaam ji ñu ñu jël seetub lislaam wala wala maanaa léegi microscope bu lislaam jàngal suñu bopp ba xam li ci lislaam nag mu ñu xam ko xam ne mi ngi nii waaye loolu nag bas lu wusu la loolu moom doo xoolee daal ne ah lii kat xam na lu tax ndax man bàyyi xamu ko déet sa sa ñàkk koo xam taxut mu mu waaram maanaa sehr ak njabar ndax xaqiiqa la am du xaqiiqa ñee ne ñu xayaal la comme constaté la ñi ne ne xaqiiqa la man damaa yaakaar ne xaqiiqatun xiyaali la lu war loolu xel la maanaam ñoom ñaar ñëpp boo taxawee ci seen digg seen diggante da nga am résultat lu ko waral xam nga léegi ci ci ci ci ci ilmu nafs al maradi soo ko ca jàngee da lay wax ne hôpitaux yi waroon nañoo am ab alam nafsaani yi ak alam physiologie yi ñu teew ñu ne ñu ne am na ay aaraat luy nit ki naan sama bopp day metti fekk ne daa am problème psychologie xoolal maanaam estomac. estomac bokk na ci li koy joxe xalaat yu bari estomac estomac bii bokk na ci li koy joxe xalaat yu bari sëñ bi loolu loolu maanaam léegi amul amul amul doom bu ñu la jox mu dindi ko déet appareil nafsani yi moo la koy dindil équilibre ngay am rek mu jeex xo ci misaal tension bi tension da ngay dem ci hôpital ñu la la koy seetal soo jógee sa kër ñëw ñaqatoo xëpp dikk ne man de daa bëgg ñu xoolal ma sama matation waaye daal di ko takkal la ko xoolal la ko xamal ne koo xamu dara lu tax bi nga dikkee mu xool la nga ñaq xam ne da ngaa dox ba sonn sa deret mi ngi circulé bu baax a baax lu lu mu la wax amul daa war a bàyyi ne toogal nga nga nga ci ci nga noppalu ba sa deret ji dal tabiiyan dal naturellement ni mu ni mu ni mu doon ree mu xool ba xam ndax sa ration yi yi nga am yëgul kon maanaam léegi al hukmu ala shay far'un min tasawwurihi maanaam maanaam kon sexre bi bi bi kon xaqiiqa la waaye xëyal yi la maanaam léegi waa ji day dalay sóob loo xam ne maanaam jinne ji misaal si nga jaay doon ko wax tey soxna si dañ lay njabar ba sa soxna si nga di ko gisee neneen xane boo ko gisee beneen image ci ci ngay gis waaye du dëgg maanaam gisoo image xaqiiqi yi waaye nag dana jeexit ci yow ndax tey misaal danaa koy misaal ci ci lenn ma ne fi ñu toll damaa nekkoon damaa mas a lekk aw ñam som bi laa mbasa lekk boo maa ngi ca daara ja som bi ba nag ma lekk ko génniliku ko génniliku som bi ay at at yu bari la ma dem keer jàngee li mu nafs ba bis daal ma xool waaw som bi lu tax ma bañ ko man waaw lu tax ma bañ ko lu tax su ma ko tiimee rek sama ma xel tey ma ne kon li ñuy wax tadaayaatul afkaar naa ko def ma tàmbali di xaat di xaat ba sama xel agsi ca bis ba ba nga xam ne jógee nañ tool maanaam léegi ñu indi booli sombi bi nekkata da di ko teg ci waaño ba mu si dugg yu weñ yu weñ yu manko yu weñ yu rëy yooyu tong ca ba ma tibbee sax seddaay bi ak image weñ yi tong ci kaw kimi gi sama xel tey ki xool xoqda bi bi ma ko fakkee bi ma ko dindee jeex na complexe bi jeex lé léegi su ma tee téemee su ab sombi damay xam ne sombi bii du booba loolu maanaam loola xam-xam la xoolal xoolal faara bi faara bi faara bi faara bi alfayri suuf da dañ koo andi am malaat ne ko day benn xale boo xam ne intiwaay yi la daa koy xëy daal ne ne ne dëgg rek nangoo tut te wax faara bi daal ne nañ ma ko tegal ci kaw am mbaam nuweel ma maanaa léeg ci léegi gi ci quartier bi ñu ànd ak moom ñuy wër ñu dem ba ci ak kër waaye daal di firigu ñu weesu ko xale bi bi daal di ni jog mu mu ne ne ne ne ñu ñu dëppa ñu dëppa di gàcce ba ci ba ci buñu kër gi xale bi firigu ñu weesu ko mu mu keer mu mu mu ne fi laa bañ demee mu may leen dañ ma xoolal kër googee ndax amul xale bu jigéen bu ma def dem kër bu fa ne ñu ne ko ankay mu ne nañ ko nañ ko ko may ñu ñu ñu may ko ñu may ko mu wir loolu léegi rek capte la capte capte la da daa bëgg soxna si te ñi mu ko wax ah moo tax moo tax maanaam maanaam maanaam bagage yi maanaam bagage yi ñu war a mën a am pour xiraa dara daa bëri de maanaam maanaam bagage yi ñu mën a am pour xiraa dara xiraa saxiya day bëri waaw loolu loolu loolu kon moo moo tax ba bëggoon naa la joxam xam naa sang si na ngeen ci ci gëstu mooy ma huwa daabit ashara yi ci ne nangam njabar la am du du njabar lan mooy nangam ji njabar la ci lislaam am du njabar ak it ndax jumtukaay bi mooy njabar wala la ciy juddoo ci taaba la xam nga rey mën ngaa rey ci alxuraan ji rey ci nit ndax alxuraan ji kon ak njabar la ndax kon opération bi mooy njabar gi wala alxuraan ji la wala la ci ci ci ci résultat bi bi muy joxe la ay question la de opération bi mooy njabar gi wala résultat bi la wala baat yi muy jëfandikoo yu jëm ci tool gëstu la man dama bëgg ñu xóotal da dama bëgg bu ñuy jógee fii jàngiwaat ko ba xam ba xam ceex rew lan la maanaam yëf yi yumbul daal yumbul jataay bi bi yumbul yaakaar naa kon sëñ bi li mu doon wax ci pas-pas bi dama yaakaar ne pas-pas bi maanaam comme tey ni ngay jëlee CD bi taxamil ci ay ay suwar ak ay ay son taxamil rek la da ngaa jàng tefli ci nangam taxamil ko ah ma ne da ngay bind faatiye ci kaw këyit bi ne ko naan ko wala tax ko da ngaa taxamil da ngaa jot na yow sirru faatiye da nga koo taxamil ci ci kaw këyit bi lu tax nga bind ko lu ci tax lu tax nga di ko bind ci ci këyit bi lu tax ngay jax sax di ko tefli lu tax tefli ji ko kooku taxamil da ngaa taxamil li nga wax ci tefli li xëpp ko ko. loolu loolu kii la de maanaam loolu gëstu la bu sew waaw maanaam bëgg naa waxtaan wi baax na lool waaye nanu nanu ko gën a xóot talaat yaakaar naa daal loolu loolu rek laa wax